asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di am contentement ak mbégte comme ni nga ko safoo di ko defee di leen dalal sur la chaîne leader Dakar People tey nag ñu ngi fi Almadi seet ci kilifa boroom xam-xam bu kenn dul naatable ñu gën ko xam si Serigne Assane mu nekk set ci Serigne Touba sët tamit si ki nga xam ne mooy Serigne Allé Lo Ndam Serigne Assane Lo la. asalaamaaleykum maa ngi nuyu àddina yëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal sama bopp. ñu ngi lay fay sëriñ bi tey nag ñu seet la comme ni ñu ko faral di ko defee pour am ak yow waxtaan laaj ak tontu waxtaanee xam-xam waxtaanee tamit pàcc yu bari ci mbiru xam-xam question bi si njëkk rek sëriñ Assane Lo Ndam nañu waxtaanee mbiram sëriñ métier sëriñ parce que guddi yu ñu toll gis nañ ni am na ñu bari tey jii dañuy diingat mbiram sëriñ. am na ñoo xam ne dañuy dem ba nga ñu bëri tey jàpp nañ ni sëriñ amatul tey jii sëriñ Assane Lo yow en tant que kilifa borom xam-xam bi yëngatu ci mbirum sëriñ tey jii ban jàngat nga am si lu ni mel tey jii ana lan ngay wax ñi nga xam ne tey jii ñu ngi diingat naan sëriñ amatul. waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax waaw li nga wax lu am la si jamono ji ndax léegi maanaa ni ñu rax te te te te bokkuñu si moo bari ndax nit ku ne ak sa cër nit ku ne ak li nga moom ñun euh, suñu cër mooy ñaan lañ xam waaye te nag euh, Dakar euh, ñuy woote sëriñ bari na te ñu si bari kenn xamul fuñ cosaanoo ak fuñ ko jëlee ñoo jékki-jékki dugg ci système bi léegi nag ñooñu ma ñoo yàq affaire bi mais sëriñ lu am la lu réel la te it ku ñëw jëflante ñu di nga xam ne sëriñ lu am la lu réel la waaw ndax ñun euh, dañ cee juddu euh, ci ndey ak ci baay euh, ki nga xamante mooy suñu baay di sëñ Bass alam ku ne xam na ko ci baatin waaye ku ne xam na ko ci mën a ñaanam ki nga xamante ni bii mooy sama maam di sama may mbàkk tamit ci kasaali noonu kon ñun mbiru sëriñ dañ cee judd yaru ci màgg ci ba tey ñu toll ni xamuñu luut loolu bu ñu paree si loolu tamit bëggoon nañ tamit laaj dañuy faral di gis Serigne Assane Lo Ndam hmm. la muy génn ci média daanaka hmm. bëriwul hmm. te lépp li nga xam ne mbirum Serigne tey jii da nekk ki nga xam ne jaamu yàlla yi dañuy faral di la soxla tamit di namm di faral di lay gis ci média yi ñu gis ni yow sa tànk bëriwul ci génn média lu waral loolu Serigne waaw xam nga nekk ci média yi ah, di wax tout le temps loolu daanaka dafa amul njariñ lépp solo ci àddina mooy ah, di pourvu di ñaar nit ñi ah, ñuy gis ab sëriñ euh, di publicité boppam nit ñi ñoo koy publicité tey jii daanaka àdduna yëpp xam nañ ma te it amul kenn ku may dem si moom wala may wax naan ko man maay diw wala man maa man di nit laay ñaanal nit koo ko gis boole ma ak nit koo ko gis boole ma ak nit ba tey jii àddina yëpp ma xam loolu nag ma ciy sant yàlla ma ci sant yàlla bu baax waaye nekk ci internet yi fu ne nga euh, fu ne nga dem fa di wax loolu ma sëñ Assane man duma ko def leeree am na solo trop bu ñu paree ci loolu tamit bëggoon nañ tamit dañu gis ni Serigne Assane Lo buy faral di communiqué waxam lu bëri lu bëri da koy delloo maamam yëpp xamoon nañ sa maam lu mu meloon ci xam-xam. Hmm. tey jii lan moo waral tey jii Serigne Assane Lo à chaque fois boo dégg ko déggee muy wax rek léppam da koy jël delloo waat ko ci ay maamam lu waral loolu. waaw alhamdulilah dama ci sant yàlla ndax ki nga xamante mooy sama maam jooju di soxna may Mbàkke moo ma yar hmm. te lépp lu nekk ci man moo ko def ci man. muy euh, fit gi ak jom ji ak gëm ak gëm sama bopp sama maam moo ko def ci man ndax maanaam biñ ma koy jox damaa fer rek daanaka maanaam ñu jox ma ko kon man laa xam ci moom laa jàngi alxuraan ak ci yu bëree bëree bëri yoo xamante ni seqoon na ak man ba di ba bi may jugee këram di di dem sama kër baay kaam ñu suñ may kaam ñu loolu ku la ko defal daanaka maanaam deseetu la dara ci àdduna mu lii nag Euh, boo ko saxoo mat na la ndey mën na la bàyyi te bi ma ko jox boobu gën naa nekk tout tànk ak yeneen ak yeneen yu ci am ma ci sant yàlla kooku wax dëgg yàlla awma fayam ki nga xamante ni bii mooy doom ji ma njëkkam ci àddina muy sama taaw moom laa tuddee waaw ndax dëgg yàlla euh, dimbal na ma ba noppi euh, xamal na ma àddina daal waaw te dimbal na ma ci lu bari ci saayit ak di moo tax fu ma fu may defe émission ma de naa wax tudd may ñaan yàlla guddal fanam

jënd ci ay seede yu bëri am waaw man xam naa si ñu bëri dañ may bëgg di ma laaj di ma diggante waale si tous les jours xam nga tamit wax dëgg yàlla am na yoo xam ne bu yàggee sax kenn da du xam maanaam eh, ki kii lu muy nuru mm-hmm. waali wax naa ci moom mille fois mm-hmm. muy ci ay vidéo fu ne wax naa ci moom sama xarit la nit ku baax mm-hmm. sama mag la sama xarit la moom sequñu ay affaire de artiste ak ay mbirum mbirum sëriñ mbiru xarit sama xarit la damay dem këram di fa toog di waxtaan di fa xaddara waxtaan sa guddi sama xarit la nit ku baax la man wax dëgg yàlla li muy def ak ñeneen man loolu conseil li ma conseil mooy moom moom laa xam mi sama xarit tey jii euh, ki dàqawaay ci àdduna bu génnoon ay seer sax mu koy jaay téeméer du ko jënd ndax sequ ko man sama àdduna sama mooy nit ak li ma seq yow moom laay doxal ak yow waa li ma seq mooy damay nekk këram nit ku baax la tey jii bu génnee dara même bu doon sax ab junni laa yor war naa ma jën see jàppale ko ci loolu la rek dégg naa ci nag lu ne samay mbokk yu bari ci ay sëriñ ñuy wax sëñ li ma war koo def ma wax ni ñoo ñuy wax man ma complexe man gëm te ku ñëw fréquenté ma xam ne man sama bopp laa gëm man gëmuma ku sama bopp yaakaar lu sama kurus bi ñoom ñoom ñuy wax loolu lu ñuy def ma rus naa ko def man amul benn bureau ministre bu may dugg fii ci Dakar xaw ma ko xaw ma kenn képp ku ma xamante ne man ak moom ci ñaan lañ xamante maa ngi dégg na ay rumeur boobu ba léegi mais man yooyu du ma ci wax waaye daal nañ xam ne man ak ñoom bokkuñu bokkuñu bu dee gëm bopp gëm sa bopp rek ah sëñ Assane kenn gën koo gëm boppam ndax gëm sama bopp moo tax ma toog sama coin ba tey lépp lu ma am ci àddina mu ñëw fekk ma may génn sama kër baay ci luwe ji kenn xelaluma loolu maa jékki-jékki génn sama bopp te may génn sama kër baay manqué moon dara lépp lu doomi nit ku baax dama dama ko teel a am mais dama ko fi ne dem wutil sama bopp tey jii ma am li ma am li ma am dara dara mooy ma lu sama kurus moom laa gëm ñi may fréquente yëpp xam nañ loolu ci man kon bu ñuy wax naan sañ asan di wax lii waaye nit ku baax sama xarit la tey jii su ma yoon lu ëpp lool dafa may jënd seede yu ëpp lool ndax jàppale ko ndax mérito na loolu te nit ku baax la la mu seq ak keneen nag loolu wax dëgg yàlla duma ci wax sama yoon nekku ci man moom laa xam nit ku baax la waaw. macha am na solo trop leer na naa bu waaw wax tamit ci mbirum xam-xam mbirum liggéey bi. bu hmm. bëri gis Serigne Assane Lo def ay karaama. waaw ñu koy waaw ñu koy gis muy jëy ay xott. di gis ko muy jëy ay lamset. ñu jël ay nit yoo xam ne tey jii am na ay ay jat bu ñu ko mënee wax loolu ñu muy def boo xam ne tey jii ay nit dinañ yéeg ci dëj. ay xottu butéel ba pare loolu lan la mën a nekkee. waaw loolu moom sant yàlla rek xam nga man yi may def noonu maa ngi lay waatal ci yàlla ni te def ma ko ngir garaaw garaawlu ba napp ay nit ndax man dépassé naa loolu ndax ku xam maanaam ci fi ma bokk xam ne yooyu du dara ci ñun man ji bi ma koy def boobu gën naa gën naa nekk tànk am na yu gën a garaaw yi sax yu ma daan def yoo xam ne ay ay kilifa ñoo du dara. karaama lii karaama wér mooy nga ñaanal nit mu nangu mm-hmm. loolu mooy karaama mais yi may def nii mm-hmm. damay wax ne ah, tul mm-hmm. ah, lu am la te tul man dama koo mën dama yaakaar nit ki ba mu ne dara war nga mën a firndee que liy war ne convaincre nit ki ne mën nga lii ndaxte maanaam ci étape boobu moom lañ toll ci jamono ji tey jii mënoo ñëw si ma may la mën naa la ñaanal nga ubbeeku waaye mën naa la taal te man mee na man maa ngi lay taal man aw ma kër gu baax aw ma oto bu baax aw ma dépasse sax bu may fanaan may la yow mën naa laa taal mais yow bu dee am ngam xel ba nga xam ne sëñ Assane mii man maa ki ki kii la may daf may dóor waaye mi ngi may nax comprendre nga su loolu la demee tul dama ko def ay américains bi ak ay tubaab ñu ma ciy fay xaalis bi ay 10 millions 15 millions ñu ma ko ci fay mais Sénégal te am na si ñoo xam ne maa ngi koy seex ak ñoom lu moo tax ma find wane ne loolu am na loolu ma ci wàllum tul la rek ak euh, protection kenn du la mën a dara waaw loolu la moo tax ma wane vidéo boobu def ci yées ay lancet dëgg ay xool ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tax musuma ko wane loolu la rek mais man diwlu si ngir napp ma ne karaama bi wér li ma gëm muy karaama muy alxuraan karim bii moom laa gëm di si ñaan nit ñi seen aajo seen tey aajo waaw nit ñi ñuy gis résultat seen aajo di man loolu mu la moom laa dee karaama mais yi may def nii nit ñee ko agra réyal ko mais man réyal ma ko comprendre ndax mën naa lu raw loolu gis ñaaxtu yàlla waaw. macha allah Serigne leer li am na solo trop xam nga sénégalais moom daanaka. waaw dëgg la waaw waaw waaw mbiram mbiram diingat. dem ñu wax ni sax. day génn que mën nga ñu ko defal waaw man xam ñu xaraama mais xam nga def naa ko ay yoon xam def naa ko ay yoon def naa ko fi kii waa defaat bu yàggee sax ñu mm-hmm. jàpp comme li ma la wax sànq mm-hmm. rek man yi ma mën yii gën a new gis naa ko ci yàlla lii ci wàllum tula tax sax moo koy wane mm-hmm. mais mën naa lu raw lii comme que nag da ngeen ma ko ñaan dinaa leen ko mais nag bis ni ki tey moom lay dakk ay karaam dootuma ko defet waaw ndax Euh, am na benn kilifa bu baax ko xam ne euh, euh, sama kilifa la ci yoonu murid daf maa woo benn jour téléphone ne ma man xaw la ay mbokk lañ nag ndax sa sa sa sa maam la ndax sa sañ tubaa moo jur sama baay lii la ma wax. ni kilifa xam ne ko ma yow suñ borom moo la benn don mooy ku la am na yoo xam ne sëñ Assane dépassé ko. yow sëñ Tuubaa maanaam lim la defal maanaam moo raw ay karaama gis naa ci yàlla te bis boobu maanaam ci laa ko jàpp ba tey ji may wax ak yow nañ déggan téléphone te moom mag fuuf ma daanaka waaw mën na maa jur sax kilifa la bi ma waxee loolu ma xalaat xam ne li mu wax ah, dëgg la karaama gis naa ko ci yàlla li ma ñu loo ci gën a naw kii def ko ngir dara juste dama koo def ngir wane ah, tul waa tul kii lu am la mais jubluma ci nappe wala dara gis naa ci yàlla jubluma ci lenn li ma mën loo ci gën a ndaw suñu asan loo réew mi ah nangu naa koo mag mais ku ma dàq ñaan ci réew mi gis ma ko waaw ndax nag wax dëgg yàlla ñaan dama ko doon nag ci ñaar ba noppi jàng ko xam ko gëm ko muy lu ma gëm du lu ma forta dama koo gëm ñaan dama ko gëm yàgg ci may gone ba léegi ma gëm ko yàgg ci ba tey jii kon nit maanaam mënumaa nax ci ay ñaan boom xam waaw waaw day mel ni yow yaa téye sa bopp yow yaa mais il faut ma tëj sama bunt parce que man bëgguma ku may may ñàkkal fayda ndax li ma xam ak li ma mën ku ko xamul man xam naa sama valeur xam naa li muy jar man du ma dem jug daal sama oto bi naa dem ci ay télé di wax ay naq sa xanam ñu may wayadiloo man du ma ko def kenn du ma wayadiloo ci àddina tey ji moo naa dem ci télé yooyu yëpp de mais doo ma gis ci télé mukk ci àddina ndax li ñuy def man dépassé na du ma ko def dama ko du def sax xalaatuma ko ci àddina ndax xam naa fi ma jóge te xam naa li ma doon xam nga ñu bëri nag ñi may woo ci ay télé di wax ma man man suñu Assane Lo dew ci télé kenn pour ñu may waaye duloo man kenn du ma waaye duloo yu manqué yi ñuy defloo sëriñ ci man kenn du ma ko def du ma ko nangu ndax xam naa sama bopp kenn du ma ko def lii rek moo tax ah, euh, dew ma ci benn émission télé waaw. couvre-feu. Mm-hmm. waaw loolu moom maa ngi ciy wax di ci waxaat di ci waxaat. corona feebar lu mën a dañ la ci réew mi. mais ci kaw euh, maanaam ñu déggoo ci ak ñu ngi ci war a déggool ñu trouver solution. wax naa ko trois fois. mais xam nga euh, mbirum état. ak ci lu mën a doon. boo génnee si télé bi maanaam di wax yéen tam sax ñoom ñu jàpp na kii dañ leen jéem a xëcc leen moo am na lu ma tax daal ku ñëw sees ma ci kàttan yàlla mën naa la turbeel ah, soir turbeel télévision macha allah ah, ah, ci yàlla waaw tey bëri na ñoo ñu bëri ñoo xam ne maanaa ñu ngi tëdd hôpital feebar fa te leen fa li du faju kii médecin te am na ñoom ñu ngi feebaru rab moo dugg ak saytaane am na sunguf soo xam ne sunguf si su ma ko taalee hôpital bu mën a doon ci àddina képp ku fa nekkoon te feebaru saytaan dugg la gi ñaax ci yàlla di nga wér ak yeneen ak yéen yoo xam ne suñu Assane Lo suñu man a dimbalee na ko loolu nag du waxi ay télé di ci di ko di ci wax mais képp ku ñëw ci ñun ah di nga xam ne suñu Assane mën na de. sëy yu bëri day influence si mbirum sëy ba tas mm-hmm. même bu dul mbirum néew mm-hmm. mm-hmm. waaw alhamdulilah ñu si sant yàlla waaw divorce yi moom bëri na torop dañuy gis koo xam ne dañ koy takk tey un mois mu divorce su ko defee ñu jàpp ne ah, ku jigéen ki moo bëggul sëy fekk na maa li mu bëgg ah, pour jëkkëram mu satisfaire ko mënu ko ah, léegi télé yi moo bari ci réew mi te it wax dëgg laa nit ki nag ma boo ko takkee takkoo ko rek pour ngeen di xoolante dëgg yàlla bu dee bu dëgg la yàlla bëgg waaw moo tax léegi euh, divorce yi maanaam bari benn bis topp mooy jigéen ñu bari ndeysaan am nañ sutura sutura mooy am nañ kersa kuñ leen laajee ndax dangaa def wax nga divorcé ngay nekk naa ko ay sama jëkkër mënu ñu bëri nañ la ah man de sama borom kër moom nangam nangam dafa tàng wala dafa nangam yooyu ngay wax rek parce que am na yow ne mënoo ko wax. Mm-hmm. mais boo xoolee li ci biir tey bu dee 100 pour cent jigéen 99 pour cent yëpp. Mm-hmm. li nga xamante mooy seen divorce yëpp. Mm-hmm. Euh, seeni borom ko ñoo leen mënul dara. muy impuissant la ñuy def. léegi nag li bu dee ne am na am na góor ñoom euh, am nañu rëy goo xam ne. si <laughs> tey jii gis yow man ngaa takk mën nga maa takk jabar léegi bu ñu ko takkee. Euh, ndaw si ne la man de am naa benn sëñ boo xam ne sëñ Assane moom de impuissant dégg naa moom kii kii na ko mën na ko faj ngaan ko nooma du ma dem ci yooyu nangam nangam topp sa rëy rëy googu nag après mu la indi gàllankoor ndax maanaam euh, doo wér te it wér googu boo ci saxee bu dee wéroo ah lu mu yàgg-yàgg nag yàgg ndaw si da ngeen di léegi nag loolu moo indi moo indi torof torof yi léegi ci réew mi impuissant bari na trop li ma ci faj kenn xamul ni mu toll wax naa ko lim bi taxamatuma ko ndax bari chaque jour maa ngi fay am na nit ñoo xam ne dañ may woo ma sëñ Assane bu la neexee heure booy def ci émission ci wàllum impuissant wooyu ñëw seede wax ñu yow yaa ñu faj mais man li ma la ko wax la man man man ah, man awma habitude di ñaanal nit di ko fësal waaye di ñaanal nit maanaam di di ko ndamoo ndax sama baay suñu bës alam eh, kilifa gu ne gis naa ko may nekk gore eh, peut-être dans France sax muy nekk maire Paris sama baay ko ñaanal mu nekk président Ablaye Wade dafa boole woon ak moom mu mu jàkku sëñ Saliou sama baay doom sëñ Tuubaa yëpp ku si nekk am na am na lu mu seq ak yow ak yeneen yoo xam ne kenn du ko ci ay télé mais li ma la mën a xamal ba xamal mooy ñaan dañ koo xam doon ci màgg jër yàgg ñaan ay ponk ay kilifa sama baay kilifa goo xalaat ci àddina kenn ñëw na këram ba ci ay jur ay zidane mhm. gin ñaax ci yàlla mhm. dañ naa ñëw sama papa mu ñaanal ay ay joueurs yu mag laa mm-hmm. nekk ci France mm-hmm. ñu ñaan ñaan téye àddina nit ñi bëgg leen mm-hmm. sama baay leen téye woon yen leen ñaar ak yéen yoo am na te sama baay mosu ko wax mosu ko wane mosoo koo gis ma maanaa ci moom kon kooku maanaa su ma juree kon nag wax dëgg yàlla may ma ma nekk gone di gis loolu ba tool ni ma tool tey wax dëgg am yoo xam ne man ah, rus naa di kenn ma lay ndamu Macky Sall te du ma ko doon ñaar gis ñaax si am naa keesa sax yaw mi may la ay Macky Sall maa ngi koy ñaar non man du ma doxee noonu. nit ko li ma seq yow man ak yow ak yàlla suñu borom man loolu laa gëm te moom laa gëm lay dund ñu ma seqal nag ay ñaan bari na mais man wax dëgg yàlla euh, nii dama yàlla bindee ku ma seqal ñaan man du ma ko ak ku mu mën a doon ci àdd du ko wax mais li ma a xamal ba xamal loxo mooy impuissant daal bari na te it Euh, mën nañ ko faj ci faj bu gaaw faj boobu di faj yu yeexat noonu noonu waaw ci deux jours mu wér ci kàttun yàlla nga xam ne tey di boobu soo xam ne sunguf soo ne sunguf si euh, sunguf si boo ko naanee mën ngaa sëyëg ak sa jabar quatre heures de temps wala cinq heures de temps ci kàttun yàlla sunguf si boo ko naanee bula neexee mën ngaa man ngaa takk ñeent jabar maanaam guddi gu mën ngaa sëy ak ñeent ñëpp te doo sonn hmm. waaw hmm. doo sonn ñeenti jigéen mën nga see sëy ak ñoom chaque jour nga nga am ñeenti jaw di sëy ak ñoom hmm. ku ci nekk nga koy may de temps ci kàttanu yàlla. macha jàng la. dëgg dëgg dëgg la dëgg la dëgg xam naa ci loolu tamit gis nañ ni Serigne Assane Lo loxo bu ci mbiram kii mbiram visa. waaw tey jii lan mooy secret Serigne Lo ba moom maa ngi ciy sant yàlla ndax këyit moom dëgg yàlla ñi ma ko ñaaw ñoom ki nga xamul mu toll ci àddina bi sama téléphone bi su ma la wanoon message yi gisoo yëpp ay. message yëpp euh, waa bitim réew la yooyu yëpp yooyu yëpp ubbi ma ko yaa ngi gis yëpp ubbi ay message téléphone bi noonu téléphone bi noonu damay xëy di am 200 euh, appels 300 appels ak yenn ma ciy sant ñu may ñaar ñëpp ci wàllum këy ñu ngi gis ñu ngi gis résultat waaw loolu moom wax dëgg yàlla <laughs> maa ngi sant yàlla daal maa ngi sant yàlla suñ borom maanaam mi ngi ma ci euh, suturaal bu baax maa sant solo trop. Mhm. tamit képp ku xam Serigne Assane Lo bëri ay soppe la. waaw bi day. macha allah lan moo waral li mel ni da nga boo xam ne moom ngay laal tey mooy secret yow. bilaay bilaay loos nit ñi dañ maa bëgg lii lii dafa ah, ah, ah, nekkul bees lu yàgg la ci man. Hmm. man may nekk di jàng alxuraan nekk gone. Hmm. dama nit ñi commencé topp ba tey. xanaa nag ñi ma xamul ñi ma ñi may dooral xam rek ñooy nekk di wax waaye man wax dëgg yàlla euh, Bayre lu ma judduwaal la dëgg yàlla man ñëpp laa saf damaa saf ñëpp ñëpp bëgg ma ma ci sant yàlla nag ñëpp bëgg la sax kenn kenn amu ko ndax yoon bi amul loolu sëñ Tuubaa dama ko waxee noonu damaa juum sax parce que nit ko dee juum mais damaa bëri ay soppe ñu ma bëgg bari na wax dëgg yàlla ñi ma sopp bëri na torop nit damay woo sax jooy barke sëñ Tuubaa nit damay woo ba ay jigéen ñoom ne mosuñu ma gis ñu jël sama photo cadre ko bi ñuy xëy di ko xool woon suñ to di jooy am ñoo xam ne nee ma suñ xëyee dañuy xëy jël sama ñaan après soog a dem liggéey loolu yëpp dund naa ko yoo xam ne seen naa la ak yeneen ak yeneen nag ma ci sant yàlla waaw ma ci sant yàlla te mosumaa tukki ni may gisee ni avion mosuma see yéeg mu juddoo ba léegi gis naa ko yàlla li ma am ci ay client ol kenn xamu nu mu ma ci sant yàlla bu baax waaw bayra moom li ma ci mën bari na gis nga sunguf si yëpp ay bayra la yii yëpp gis nga lu xonq li bayra bi amul lu ko gën a euh, kii seex bi il faut nga jël li nag bi euh, ndoxu jaan laa koy booleel mooy jaan yi ma yor ñu bëri naa sañ asanloo jaana mi nangam sunguf si moom ak ndoxu jaan ñooy ànd dafa am lu ma koy booleel. ci kàttanu yàlla boo sangoo ku siiw di nga siiw ku siiwul di nga siiw. ku am xaalis di am xaalis ku amul xaalis di nga am xaalis. Ah, bayre bi tamit bayre bu doy sama baay bii ku ko mëstaan jox 10 millions du la ko jox. Ah, maa ko doon ci moom. ak yeneen ak yeneen yoo xam ne am na fi ay ci wàllum ah, sungu fi na ci wàllum rab la yépp am na fi ñu si sant yàlla daal ñi sant yàlla bu baax waaw waaw waaw mais waaw tàggoo mooy maa ngi santaat yàlla bu baax. Euh, euh, julli si yoon salaam di sant sëñ Tuubaa di ñaanal sama baay sëñ Bassirou Al Aram sëñ bam yokk ay leer muy sama baay boo xam ne li ma ko faa ndax euh, jom jim amoon ndax sama baay maanaam du daan gis te tey sama baay bu ñu la nettali histoire am ak fi jaar même boo ko mos a gis maanaam loolu da koy bëgg ngir jom ak fitam sama baay ah bi ngay dégg maanaam moo ko njëkk a luyee ay kilifa yu mag ku ci mel ne sëñ mbay ak yeneen kilifa kilifa yi sax xam na li may wax sama baay invité leen mu fay def journée culturelle si Ahmad Bamba sama baay ko njëkk def France comprend nga maa ma Bamba Débé suñ bés lu àll moo ko sama baay moo ko créé ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne bii sama baay liggéey na ko fii ci réew mi waaye ci bitim réew muy kilifa di maanaam borom mbooloo Amérique lim mu fa tuubal ci ay américain kenn xamul ni mu toll France noonu ay nit dañu ay américain naa ma sama pap moo ma tuubal ak euh, France ñoo xamante ne américain ne bu ñu la xas de suñu tubaab yi nga ñi da nga naan ñi nekkuñu nekkuñu ay mm-hmm. ñëpp sama baay mooy ci loolu. loolu moo ko ci sant muy sama fierté moo koy ñaanal yàlla yokk ay leeram taaju si barkeem sama baay nit ku amoon jom la dama koy fa sama baay dama ko faa ndax ak fitam ngir ñaaw ci yàlla moom mu judd mais dama lool ngir jom ak fitam ak njàmbaateem ba noppi maanaam maanaam ñëwee woon kurus bépp kilifa boo fi dégg muy ci tiijaan yi muy ci murid yi sama baay am na fu jaar ak yow li may wax ni kilifa yi xam nañ ko parce que ay doom suñu tuwaay bëri samay wóllëre bàyyi lañu woon moo mu nekkoon nit ku baax sëñ bés am yal na yàlla yokk ay leeram te it ah, kii tax ñu si barkeem waaw loolu daal laa amoon lu may wax may leer nag ah, benn affaire boo xam ne il faut ma leer leeral naa fi naa ko leeraat sëñ bés alam ki ko jur sëñ aali loo moom ak sëñ Modou Lo ba bokk benn baay sëñ aali aram loo sëñ Modou Moustapha seexalu ko sëñ aali aram loo sëñ Touba moo ko seexal directement amul jàdd jàdd directement nim mu seexalee yéen kilifa yu mag yi kilifa seex yu mag yi ngay dégg noonu la seexalee maam sama baay judd ci moom sama baay jur ma kon man maanaa kon man euh, euh, kii du ma doomi gone man doomi mag laa surtout mag ci ndey ak baay ba noppi ki nga xam ne moo yaay soxna may Mbàkke bu doon góor tey mooy nekk xalifa général du murit jigéen la ak yeneen ak yeneen kon man maanaam du ma doomi gone man su ma toogoon sax ñaan sax suñ borom am lu def ci man ndax maanaam ma ci sant yàlla bu baax di ñaanaatal bu baax sama baay sëñ Bass Aram yàlla na yàlla yokk ay leeram ah ci bàkki sëñ Touba maa ngi ñaan Sénégal ñëpp jàmm di ko sama bopp ah ma di dénk ne àdduna lu gàtt la lu ñàkk solo la waaw nuru na lu am solo waaye lu ñàkk solo la ndax tey koo mën a dégg muy man di sama di keneen koo mën a dégg succès bi mën a am ak nu mën a topp bis dina ñëw ñu gas pax ba mu ko ko ci mu dee te it bu deewee nit ña kii la kii kii lañ ko ah, jéggi fa ñëwaat de te amul ko fay wéttali kon nañ sax ah, ah, ci gëm yàlla bi gën a dëggu ci ci ànd bàyyi ko fi ou bien moom dina deewee bàyyi la fi kon nañ dëgg ànd ak suñ borom xam ne loolu mooy lu wér benn bi si topp nag may dénk niñ mooy ñu bàyyi di xasante waxante lu ñaaw àddina amul solo comprendre nga tey jii mën naa la wax lu ñaaw wala wax kenn na ëllëg si su ma génnee ak xëy suba ñeneen ndeysaan si ñeneen xool loolu maanaam di fierté jullit tey bu deewee ni gi ay vidéo naa ah, sëñ Assane ndeysaan loolu li mu seetaloon kii sëñ Assane li mu seetaloon kii tey jii man ak Waly Seck ma waxaat ko encore ñu koy naan sëñ Assane Waly seen Waly non mais du loolu. parce que moom laa ko su ma seqaanoon keneen koo xam ne laaj na ma man man yi may wax ci Waly yëpp du nekku ne man man maay jukku kër yee wax ci moom. journaliste ñu ma gis posé ma insisté si loolu ma tontu leen si ndax am na yoon bu yàggee sax maam iñaan lay nu ak soxor tey Waly ma duma ko xam di fréquente këram journaliste ñëw si ma ne ma sëñ Assane la nga xam ci Wally man noo man Wally kii eh, kii du ma ci wax mais loolu bu yàggee man a soxor lay nur si man koo xam ne yow yow ki ngay nekk maanaam këram ngay nekk tous les jours journaliste ñëw ñëw dékk la ban ki loo xam ci Wally nga nekk naa ko ay xawma dara mais loolu bu yàgg ñaan man duma ko def man man journaliste bu ma laaj ku mu mën a doon bu dee xam naa xam ci moom lu baax dinaa ko wax ndax tey jii su ma deewee ñaan naa yàlla tey su ma dee ñuy génne vidéo yi mel naan suñu Assane de ndeysaan xool li mu waxoon waxoon <laughs> man foofu laa nekk man fi gars yi nekk ni nekku di xasante def yi ñàkk fay di doye di man du ma ko def man lu baax lay wax képp ku ma xamal lu baax soo ma ko laajee su ma xamee dinaa la ko wax ak ku mën a doon nag mais journaliste yi ñoom si liñ tàmm mooy sama digg ak wàlle à tout le monde kii la kii la moom lañ may laaj moo bu mes laajee dinaa ci wax mais du caagi ni que man man Wally Seck laa fi nekk wala kenn noonu man nekkuma fi kenn man sama bopp laa fi nekk waaye sama xarit la muy ku baax xam si moom ay qualité yu baax ma dama nekk moom fuñ ma laajee dëkk micro dinaa wax si moom lu baax. tey jii maanaam Youssou Ndour boo ñëwoon dëkk ma sama mbir nga ne ma ah, la xam si Youssou Ndour ah, xaw ma parce que xaw ma ko mais xaw ma ko man ku ma sëñ mënu maa moom man du ma naa fekk mais ku ma xam gis naa ko ci lépp loo ma laaj moom muy lu baax naa ko wax ak ku mën a doon la waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah taala thank you